asalaamaaleykum mbokki asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki taalibe yi mbokki jullit ñi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di jotal nuyoo ak xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak ñaanal mu jëm ci. Sénégal yëpp ak ndokkeelam ci weer yi muharram ashura bi ñu génnee di ndokkeel mbooleem ummat islaamiya waaye di ndokkeel mbooleem Sénégal ñu ñaan yàlla at mi nekk atam naataange atam jàmm atam yëkkatiku ak déggoo ci Sénégal lépp fan yi nag am na xew-xew bu xew boo xam ne yëngal nañu bari ku nekk yaa ngi ko bëgg a comme ni nga ko gisee muy téere yi nga xam ne génne nañ ko ci histoire Sénégal mu nekk commission boo xam ne professeur Iba Der Thiam mu ko jiite ñu bind ci taarix bind ci taarixi kër alxaaji abdullahi ak école loo xam ne ñi askanu ci kër gi ak ci école bi yépp gis nañ ne juum nañu ci xaqi euh, taarix boobu ñépp nag dellu siaat jokkoo nañ ak ñoom ñun ci suñ bopp ñu nangu ne dëgg-dëgg njuumte am na ci liñ bind te pare nañ ci pour retirer mbooleem euh, volume bi nga xam ne ni njuumte boobu mu ngi ci te danañ ko gàgganti bindaat taarix bi nga xam ne moom moo wér loolu defe naa bu Sénégal di bindaat taarixam ndax tubaab bi ñoo moo ñu bindal suñ taarix démb ñu gis ne tooñ nañu démb tooñ ñu tey laalal ñu plan pour tooñ ñu ëllëg ñun ñu dellu siyaat pour bindal suñ bopp suñ taarix buñ demee di bindal suñ bopp suñ taarix réeree shaxsiya bu mel ni alxaaji Abdoulaye Niass loolu defe naa ne dafay tekk rek ne ba léegi senegaal ñu ngi seet seen bopp gisaguñ seen bopp ndax alxaaji Abdoulaye Niass dayoom ci lislaam dayoom ci xam-xam dayoom ci Sénégal dootul moomeel boo xam ne ñim jur ak ñi askanu ci moom ñoo ko moom mais ci moomeeli senegaal la boo xam ne nii mën naa wax ne bu ko Sénégal amutoon Sénégal daf koy uti ndax ñi ko amut ñi ngi ñëw Sénégal di ko ut si waaye nag euh, liggéey doomi aadama noonu la mel dafa laaj topp dafa laaj gëstu dafa laaj segg dafa laajoon tim loolu yëpp luñ ci bind ñu dellowaat ko ci nit ñi ñu xoolaat ko mais nag comme ñi nga xam ne ñoo saytu liggéey boobu wax nañoo ñoom te nangu nañ njumte boobu te nangu nañ pour defar ko damaa foog ne loolu jarut eh, fitna wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaas alquran na ngeen teet fitna fitna du jot rek ñi nga xam ne ni ñoo tooñ taarix bi ñun ñoo ko bokk ba woykati arab bi wax na ne laysa bi insaanin wala aqilin man laa yaci taarixa fi sadrihi duut sax nit te duut ku xelu koo xam ne nii xamul taarixam wa man rawa axbaar man qad mada adaafa amaaran ila umrihi képp koo xam ne nettali nga xam nga taarix yi ñi jiitoon dafa mel ni dangaa jël beneen dund yokk ko ci sa dund kon nag dund bi nga xam ne ñun buñ ko yokkoo ci suñu dund danañ am seetu boo xam ne mën nañ cee seetoo pour xam jullit bu baax mën nañ cee seetoo pour xam citoyen bu baax mën nañ cee seetoo pour xam nit ku baax mën nañ cee seetoo pour xam ñun ñooy ñan démb man cee taxaw pour xam ñun ñooy ñan pour xam fan lañ jëm ëllëg loolu dëgg-dëgg buñ ci juumee njuumte boobu duwut njabooti alxaaji abdullahi rek lañ juum ci seen xàq mais Sénégal moo juum ci xàqam te Sénégal bu juumee ci xàqam dëpp xam ne moom juum na ci xàqam taxaw pour defar ko xam-xam xam-xam moo koy tontu waaye ay saaga ay xasteeg yooyu di ko tontu loolu mooy message bi nga xam ne moom lañ bëggoon mu jàll ñu ànd ak dal Euh, commission bi tim ñi ngi leen di wax li nga xam ne nii moom lañu waxoon ak ñun ñu ngi xaar di gis jéggi yuñ ci def ndax waxoon nañ ne copie yi nga xam ne nii ñoom mën nañ ko retirer ci bépp barab boo xam ne barabu gëstu la wala ci ambassade yi walla ci barab yi nga xam ne officiel la ñoo ko fa joxe dinañ ko retirer defaraat li nga xam ne mooy li wér te bu laajee sax kër gi ñooy tànn ñi nga xam ne ñooy bind taarix bi loolu yëpp waxtaan nañ kook ñoom kon àgg nañ ci foo xam ne nii defe naa ne jaratut ñi oote ay violence ndax jàmmi kenn nekku ci te nañ xalaat ñun ñëpp ne ñiy xeex lislaam ñi ngi bëgg gis jullit ñi di xeex ci seen biir waaye ñuy xeex tariqa tijaan te ñi ngi woo gis tariqa bi di xeex ci suñu biir te amuñ soxna ci loolu yëpp amuñ lu ñuy jëriñ ñun kenn ci ñun du jëriñu ci xeex boobu bàyyi Niass dafa waxoon ne ku bugg noonoon noonoon sa bakkan bi ku bugg xeex xeexal ak sa bakkan bi moom mooy noon bi dëgg-dëgg yal nañu yàlla dimbale yal yàlla def ñii ay jullit dëgg-dëgg yal nañu yàlla def ñii ay mbokk dëgg-dëgg mbokk yoo xam ne nii dañuy mel ni mbokk war a mel laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du gëm ba ta mu bëggalee boppam la mu bëggal mbokkam yal nañu yàlla àggale ci loolu waaye ñu ngi fàttaliwaat rek ne njuumte duñ ko fajee njuumte wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu